shaytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbi zabir diwar wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara tey tàmbale ci nuyu bi ak ziyaar bi ak cheikh mouhamadul muntaxa moom cheikh mul bachir moom borom tuba mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko lool noonu itam la ñuy siyaare sunu sang bu tedd bi sunu yaakaarte ëllëg na Cheikh Salihu Touré ñaan suñ borom mu yàgg mu yàggal ko fi lool te wéral ko ci barkeb Cheikhul Khadim mu mel ni dañu fee daje tey di euh, di euh, euh, jeudi 24 novembre 2022 fii ci kër Serigne Saliou Touré mu am ndigal loo xam ne dafay bawoo ci sunu sangu tëdd yi bu ko defee ñu ñëpp ñu maase daal di taataan. noonu itam lañ nuyoo su sang bu tedd bi di sëñ Abdou Lahad Touré moom Serigne Saliou Touré bu ko defee ñëpp ñu maasee teewlu fas ne déglu ndigal li nga xam ne moom moo bawoo fi ñoom bu ko defee ñëpp ñu maasee ci loola te jéglu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu mbokk taaliba yëpp di leen ziyaara bu baax ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Al Bachir yàlla na fi yàgg lool te ak njabootuk sëriñ Touba gépp niki noonu ñu ngi ñaanal sunu kilifa sunu wasila Maulana ak Cheikh Saliou Touré ñu ngi koy ñaanal sunu boroom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér mboolem loo xam ni ay yéeneem la ci yoon wi ak ay yéeneem ci lislaam ak ay yéeneem ci doomu aadama yi yàlla na ko sama boroom mottali sababu jotaay bi nag mooy ndigalul liggéey ba muy liggéeyub Serigne Saliou Mbacké ba nañ ko daan defe at mu jot yàlla atte na ndigal li yegsi na muy foofe ca xelkom tooli xel koom ya fi ardi xelkooma wa adallaahi anjasahu lissaalixiina kama yarwihi kuttaabu suuf su tedd soose suuf su barkeel soose nga xam ni sëriñ Saalihu yàlla nañu yàlla taas ci barkeem waxoon na ni jëlale naa ñi fi nekk di liggéeyal sëriñ Touba waaye jigéen ji boot doomam jaar ci sama pénc mi jàll rek bu amee seetlu dana gis kookee la mu gënee ña ca des kon liggéey boobu su su tedd soosu nga xam ne suufu leer la suufu barke la suufu ngërëm la suufu faju ajo la eh, ba tax mbokk ma doon wax ni xalkim wala taxsha min xel kooma tàngooru jazaub xalkamatin bandal ana nguuru mu ni xalkim laxasal rek dem xelkom wala tax sa min xelkooma tàngoor nee na bu ragal aw tàngoor bu bul ni daa tàng ba ba nga ni doo dem bu ragal ab coono bu bari ndax nee na tàngoor wi ak coono yépp la topp mooy ak nguuru nguuru nag mooy gërëmal yàlla aajo ju faju àdduna ak àllaaxira kon liggéey boobu ñu ngi koy fàttali mbokk jullit yëpp di ko fàttali mbokku taalibe yépp rawatina ñi ñu bokkal sëriñ Saliou ture nga xam ne liggéey bi seenub liggéey la ah, di leen sant itam bu baax a baax ndax yàlla àtte na at mu jot ngeen dagg yitte yëpp nekk fa sax fa ay fan nekk ca liggéey ba ba mu jeex ba sëriñ bi ñaanal ñu loolu nag ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax ah li ñu nekk nag yoonu murit rek la te yoonu murit du dangay seet ni lii moo gën a nooy ci man wala lii moo gën a neex ci man wala fii la sama intérêt ne yoonu murit moom lépp day aju ci ndigal rek ni ko ku baax ki waxe laa tafaalu an bi xayri izni fal iznu shartun fi qabuli sha'ni ak itam li ñu sëriñ bi tànnal mooy alxayru fi maxtaaruhul muxtaaru laa fi lladi nufusukum taxtaaru kon nag yàlla atte na 2016 Cheikh Moustapha moom sëriñ Saalihu yàlla na fi yàgg loolu te wér bi mu ñëwee fii di nemmiku sëriñ bi sëriñ bi daa yónnee woo woo njaboot gépp bi ñu ñëwee ba toog keroog jotaay ba laata muy sori ñu bari teewe nañ ko ci njaboot gi laata muy sori sëriñ bi dani ko dañu Cheikh Moustapha man ak ñoom ñii ñëpp dey jébbal nañ la sunu lépp loonu digal lañuy ñuy def loonu tare la ñuy bàyyi kàddu googu nag mooy kàddu gi nga xam ni moo bàyyi ko ci sëriñ bi jëm si ci ñun kàddu googee nag sàmm ko moo waral taxawaay bi te incha allahu rabbi li feek ñi ngi dund kàddu googee dara lu ñu ci génne ndax ay murit rekk lañ bëgg a doon tabaarkàlla itam Cheikh Moustapha boobu ba léegi taxawaayam ci sëriñ bi àdduna sépp xam nañ ko ndax waxtu wu jot bu yàggut moo la fi mujj eh, ànd fi ak seex Mouhamadul Bachir moom sëriñ Saale ñu ñëw di nemmiku sëriñ bi fii keroog bokk na ci lim ñu wax moom mu Cheikh Moustapha danañu fi fii de yéen ñi fi nekk di taxaw liggéey bi na ngeen xam ne li ngeen fii def lépp ñun njabootuk Serigne Saliou ngeen koy defal daan nañu ndax sëñ Saliou ture sëriñ Touba moo ko yoral boppam kon nag ñoom lépp lu di taxawaay lu ñu war a amee fii rek ñoo ngi koy taxawee tam mat te lool moo xam màggal gi la teraangay màggalam teraangay tabaskeem yi kooram ak sax bu dara xewut mu yeble fi ay nit di nemmiku sëriñ bi ndax bu yàggut rekk matul weer yónni na fi sëñ xaadim Mbàkke moomam mu ñëw fii di nemmiku sëriñ bi teraanga yu nekk mu andi ko fi kon taxawaay boobu nga xam ni ñoom am nañ ko ci kër gi ngir yàlla jëmmi sëriñ Saliou ñu ngi ciy sant bu baax tey ñaan suñu boroom gën leen fee yàggal te leen seereel ni daal ñi ngi laxasaayu rek nekk ci liggéey bi incha allahu rabbi bu ko defee liggéey bi itam incha allah eh, ajuma ji ñuy séenu ji ci topp ajumay suba gi bu dellusee muy le 2 décembre la ñuy déparé fii ci jàkka ji am na itam ñuy déparé fee ca kër sëriñ Mor Sall ko defee nañ ko daan defee rek waxtu yooyu ñëpp xam nañ ko mooy gannaaw takkusaan gi kon ñëpp ñu ngi leen ci bàyyiloo xel di leen ci soññaat bu baax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ndigal li nag moom mooy tooli ko mi nekk le 2 décembre incha allahu rabbi bu ko defee rek ñu ñëpp ñu waajal ko te maa si def si yitte ndax murit ndigal moo koy jëriñ ni ko sëriñ bi leerale kon na ñëpp nañu maasa laxasaayu góor jigéen mag ndaw te fas yéenee jëfe ndigal li kon bu ko defee dañuy jox Serigne Saliou Ba mu am ci ay kàdd yoo xam ne bii def daf ko ci sof ñun ñëpp ñu maasee daal koy teewlu bismillah min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp di leen siyaare tey jégalu bu baaxit nag ñëpp rek zaayira nag baatin kàddu yi nag daanaka kàddu tënk la rek ginnaaw ñaanal nañ ñi ñu war a ñaanal kon ñun bu ñu ñëwee rek dañuy jokk ca wax leneen ndax jàpp naa ne yëf yi ay tënk rek lay doon waaye it sëriñ Moustapha moom Serigne Saalihu yàlla na fi yàgg lool te wér bu sëñ Moustapha Touré taxawee leeral ab taxawoom ci biir kër sëriñ Saliou ture war naa gën a leer nit ñi ñu xam ni du liggéey boo xam ni coobareem la koy liggéeye liggéey la boo xam ni da ko ànd ak mbooloo mbooloo mi mu ko àndale tubaar kàlla ay magam lañ ak i rakkam yoo xamee ni mbokk ga ñu bokk seenug bëggante ak seenug yaatal ak seenug bennoo boo xoolee moo raw mbokk ga waaye bëggante ak bennoo ak yaatal googu yépp it nañ xam ni Serigne saaliwu Touré mii di seen dijaay moo ko ji ci ñoom ndax it bu ñu waxee loolu liy leeral bi mooy buñ nee liggéeyu Serigne Saliou nañu xam ni sëñ Sidi Mbàkkeem sëñ Abdou Lahad yàlla na fi yàgg loolu te moo nekk ca bopp ba mooy seen mag ñoom ñëpp it ñu topp ci ginnaawam sëñ Sidi Mbàkke moomu sëñ seexum sëriñ Saaliwu sëñ seexum sëriñ Sohaybu ak sëñ Moustapha moom sëñ Saaliwu Mbàkke mii ba ñuy nekk njaareem ñoo sëñ Saaliwu ture sëriñ Saaliwu ture seen dijaay la waaye da leen defoon ay sang taxawu leen ci wàll gépp nga xam ne foo leen gis rek ñoom ñooy ànd loolu moo waraloon seenug bëggante ak seenug yaatal ak seenug bennoo ba noonee la ñu dem ba seeni rakk roy leen ci góor ak jigéen macha allah ba tax na fu kenn nekk ci ñoom rek day mel ni ñëpp la fa taxawee kon sëriñ Moustapha lépp lu mu def ko sëñ Saliou Touré rek nañu xam xamee ni njabootug sëñ Saliou gépp lañ ko defal njaboot gi nag mooy comme ñooñu ma tënk léegi ak noonu mu demee. si la woon loolee it wut jaaxal nit ñi ndax olof dañu lu waay nàmp rek loolu ngay tokkamtiku te bu ñu xoolee rijaal bu mag ba murit saadix bu mag ba sëñ Moodu Asa Jaxate maanaam dinañu wax ci mbiram lu gàtt moom it ci tënk ndax jamononteeg nit muy sab nawle nga yëkkati sa njaboot jox ko xëy na sax dina am waaye bariwut lu muy am te yombut te moom dafa jamonoonteeg maam Mor Anta Sali radiyallahu taala anhu mu di nawleem ñu ànd di liggéeyal suñu boroom ba doomi maam Mor Anta Sali ja feeñee mooy Abdullahi xaadimum rasul mi nga xam ni moo war a liggéey bii daa jëlug njabootam gépp moom sëñ Modou Assa Jaxate jox ko Serigne Touba kon la sëriñ Saaliwu doon wax naan du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal ànd na ma ñëpp foofee la ko roye foofee la ko donnee sëñ Moodu Asta Jaxate yit ba mu jëlee ak njabootam jox sëriñ tubaa dafa jël ab jarbaatam bu ñuy wax seex Ahmadou Kumba Touré di waajur ci sëriñ Saaliwu Touré mii di jarbaat ci sëñ Moodu Asta Jaxate li ma leen di bëgg a leeral rek mooy mbir mi lépp benn la ba mu jëlee sëñ Ahmadou Kumba Touré moomu moom la def mu jarbaatam def ko ab def ko doomam muy loxo ndijooram di loxo càmmoñam ba féete ko fépp ba sëñ Modou sa Jaxate li muy tedd tedd tedd nga xam ne bu ñu duggoon ci ayu karaamaam rek dina yéeme lool waaye cib tënk rek ba mu fiy jóge sax dafa dénkaane ni bu fi jógee na ko sëñ Ahmadou Kumba waajal nga xam ne sëñ Ahmadou Kumba moo ko waajal loolu tamit maam Thierno Touré Baye Thierno Touré yàlla na ko suñu borom yàggal te muy rakki sëñ saaliwu ture moo ñu ko wax fii ci ci gàmmu gi weesu kon ñëpp xam nañ diggante boobu na mu mel ba loolu amee tamit sëñ Ahmadou Koumba Touré moomu keroog bi Serigne Saliou ture feeñee jamono Serigne Saliou Mbacke la fekk tund mbaakul mu woo ko ba mu ñëw mu jël Serigne Saliou Mbacke jox ko ko àddi yi sëñ tubaa kon it sëñ Ahmadou gis ngeen moom it fa mu jaar sëriñ Saliou ture tamit ne dann sëñ Saliou Mbacke rek mu dib sëriñam amul gudd amul bëccëg amul xalaat amul dug bëgg ba mujj na liggéeyalatul sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Touba liggéeyal moom sëñ Saliou Touré ba tax na liggéey bii ngeen gis tey mu nekk ci njabootug sëriñ Saliou te ma leen ni Serigne Sidi Mbacke moo ko jiite ndax daa doon tool bu yaatu tool nag bu yaatoo ñëpp mënuñoo dalandoo fenn day xat kenn ku nekk day dal fenn ñu jiital waar yi mu ñëw mais ñoom ñëpp benn la ñoo bokk benn bëgg tool yii tamit bu sampoo ba taxaw ginnaaw yàlla Serigne Saliou Touré moo ko samp ndax got ba ko Serigne bu Mbacke di am booba bu sëñ Saliou Touré feeñee jamono yi day dalagul jàng maanaam tout tànk la. nga xam ne dong ya fa nekkoon te got la sëñ Saaliwu Mbàkke njëkk am ci daaray boppam bu ñu fa masaan nawet ba nawet bi jeex dañuy ñëw njaareem ko soxna Fat Jaxate fa la ñuy noor ba nawetati ñu doog a ñëw ca loolee lañ nekk ca loolee lañ nekk ca loolee lañ nekk ba sëriñ Saliou ture ñëw njaareem jàng fa comme ni ma leen ko leeralee léegi moo jarbaatam yooyu di ay sangam ba lam waroon a jàng yépp mu jàng ko ba mu matalee am njàngam ci la ko sëriñ bi yóbbu got got doog a samp nga xam ne léegi noor ak nawet la ñuy liggéey njàng ak liggéey ba ak lépp moom mu jiite ko kon liggéey boobu tey bu ñëwee ba ci loxoy njabootuk sëñ saaliw kon sëñ saaliw lépp sëñ saaliw ture la léegi it jarbaat ak ndijaayam it dañ leen di leeral nañu mel soxna Anta Xuma foo masaan dégg sëriñ saaliw Mbàkke ne la danaa la yónni ci sama ndey mi nga xam ne soxna Anta moo taxoon muy wax soxna Anta xumma waaw bu bu masaana bëgg a yónnee ca ku makka danaan soxna faati waaye bu nee na sama ndey rek na nga xam ne soxna Anta xumma moo tax kooku looy dañ ko faa tënk rek waaye lu ci nekk rek dañ cee bëgg a xamal ni leen ni liggéey bi nii la demee waaw liñ ci waroon a leeral lépp macha allah mënuñu ko waaye. ñu ci sant yàlla bu Saliou Ba kon ñu ñëpp ñu maasee xamandoo ko noonu bu ko defee ñu tàllal loxo yi sëriñ bi daal def ñaan sëriñ Abdoulaye Touré moom sëriñ Saliou Touré wër tey ñaan وسلم على النبي وسلم وقد به هديته وسلم على النبي وسلم وقد به هديته وسلم على النبي وسلم وقد به هديته